salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu del siwaat ci euh, deux mille cent dix-neuf ci ndimalu borom bi subhaanahu wa di jégalu ci baat bi nag di leen jaale kilifa googu di suñu sëriñ sëriñ Saalix Ture nekkoon Cees ku mat a toppaat ay waxam di ko diglu nag ndax moom daa bokkoon ci kilifa yi nga xam ne mosuñoo changé taxawaay daana wax ni sëñ Tuubaa mi ñu xam de mi ne ci téere yi bokkal ak ak mi muy dégg léegi muy dégg ci mbedd yi nit ku ndax mat lim loolu moo tax sëriñ Abdul Ahad ci année quatre yi mu sàkku ci sëriñ Saalew ñu jële ko got gam nekkoon di jàngale mu ñëw nekkal sëriñ Abdul Ahad ci Thiès ci juwaayu murit ji foofu mu nekk fa daal benn représentant gis nga ko sëñ ca mat ga xam ni kii li ma bëgg mu dem ci taalu bépp euh, rakkam mu diisoog moom mu ñëw nekk Cees di liggéey liggéey bu rëy ba yàlla moom ko noo ngi koy jaale mbokk yépp ku ko diglu rek di nga jariñ ci ay waxam kooku ak koo mën a doon rek wax joo moom la jariñ ñooñu lañ soxla fi ñu toll nii waaye ñooñu ñu ngi noonu ñu gis ko ko daanaka bi sëriñ Abdourahman ci liggéey bis ba bi mu delsee mën nga ne ci la wàccu liggéey waaw ay benn at manqué wul yéesu la ñu rawante ñoom ñaar ñu ay keno yoo xam ne gis nga ko loolu nag war naa tiitloo ñu baree baree baree bare bare waaw Euh, ak ñeneen ñi seen mbokk gaañu ak suñu mbokk lu nii ñoom ñëpp ñu leen di ñaanal yàlla defal leen njëggal am na mbokk bu ñuy yónnee di gën a laaj ci ngóor si siise ci wax ji wax ci alquran am na mbokk buy sàkku kan mooy leader leader ku mat leaderu politique wala ku mën a jiitam réew ak yu baree baree baree baree bare mbokk mi ni benn boroom xam-xam moo ko ni fen fen day dagan ci fu baree bari rawatina booy defaru diggante walla booy wax ak sa njaboot yooyu jaaral na fi juróomi xaaj juróom benn xaaj yi fen yi am wañ ci sopp ak wañ sib ak wa waaye Sëñ Tuubaa bi mu koy nettali bi mu noppee dafa boole fen yëpp nag moom daal di koy araamal ci boppam xaj na fa mu nekk bokkul ak fi boroom xam-xam boobu nekk ba tax mu waxee noonu léeg léegit it boroom xam-xam waxee noo xam ne yow yaa jot ca leen ni wax ja te jotoo lépp waaye dafa détaillé woon léeg-léeg boroom xam-xam bañ a détaillé léeg ku wax te boroom xam njàpp ne boroom xam la fekk loolu la ca xam léeg-léeg nit wax fekk affaire am lay defar ba tax mu bëgg a daganal fenn noonu fi ñu toll nii mat na noo teey ci sunu biir ndax ab julit day ñëw wone maa ah, màndargam naafeq ndax julit bi buy fen mu ngi def melokaanu naafeq te loolee bu ci continuer am na lu mu koy jural waaw bu continuer di am na lu mu koy jural ah, ndax ah, jël nañ ci abdourahman ibnu yazid ibnu an abi mas'ud mu jëlee ci abu mas'ud mu wax ni Euh, i'tabiru al munafiq bi salaasa ñett ñi daal ci ngeen di xame ni kii am naafiq la mooy su waxtaanee rek fen ca waxtaan wa mooy bu joxantee nit ab dig rek rendez rek dina faussé waaw rendez ba mooy bu ñu ko wóolu dana wor gis nga ko léegi nag euh, wa min um man ahada allaha la in aataana min fadli wa bi ma kaano yaksibuna maanaam aaya yooyu dafa am ay boroom xam-xam yu tey wax di ci junj ci dëggal ñi nga xam ni ay fenkat lañu mbokk yi loo xay boo koy def di ko def dañuy mujj bind la fa sunu boroom ni yow mii ab fenkat nga yow mii dangaa sori aljana da ngaa sori sunu borom subhanahu wa te ba léegi ñu ngi koy def te léeg-léeg yow mii laajte kan mooy moomat leader ci lislaam xam naa li leader yi commencé jóg di laaj réew mi moo tax muy wax ndax ab leader dina fen waaw daa mel ni aayul ci sunu wet gi lu nekk ndax ki ñu xamagul ni day wax lu amul na koo xam ni da mus a jiite wala actuellement yaay jiite moo xam njiitu réew nga wala yeneen jaraaf yu mu fal waaye wax nga nit ñi ay yoon yoon lu baree bari loo xëy defoo ca dara dara te ba nga koy wax am na ñu taxaw ni kii li muy wax lu dëgg sosal nga nit ngir defar sa affaire loolu moom Afrique gii nu nekk moom ba ci imaam yii sama mbokk yii ñun ñii di taxaw ci min bari ajjuma yi bari na ci imaam yuy wax muy dañ bari na ci imaam bu wax yow mi ko dégg xam nga ni li mu wax moom mi ko wax sax xam nañ du dëgg waaye am na lu tax mu wax ko kilifa diine taxaw moom it jaar fu mel noonu ci ci ci ñu koy def ci seen biir te ñu koy def ci seen biir li may wax rek toujours man du ma généraliser mukk waaye benn benn yi ne ci wala fukk-fukk ya wala téeméer téeméer yi ne ci biir mboolooy di jàdd ñooy moom wax joojo bu booba ñooy moom wax joojo bu booba kon day mel ni balaa fen a dagan kay ci booy defar ay nit ah xanaa yi nga jëw ni ko rek ñoom ñaar meroo nañ ba bàyyente ku ne wax nga ci sa xol wala nit ñi dégg nga ni diwle ba yowmal xiyaam yàlla bul fa gise sax te noonu nga ko defe li ci li nga weesu lépp def ngay pexe dem ci kenn ki ni ko man day li ma yëkkati day mooy sa digganteeg diw diw de ndekete bett ñu bari diw ndekete laa ñii mu la jëkk tudd waaye ah diw de nee na nangam ak nangam nangam ndax daa réccu lool xaw ma lu xew de xaw lu xew de waaw yow daal su ma yow ni ma koy def daal dama koy ruccanti dafa mel dafa ñëg de ak yu mel noonu ba tuddante am ca waaw kon demal ak fekkale yooyu nga def yooyu duñ ko jàppee fen waxee dafa araam yàlla dafa xir lool ci ñaar ñu dogoo rawatina ay jullit ba Um mu wax yonte wax ni ñaar ñooñu bu ñu faatoo ci dogoo googu dina am ku ca ku ca dul aljana kon loolu ku ko dindi kay ku dindi ah, nit ku nar a sawara wala yéex a dugg aljana loolu dañ lay félicité noo ngi jéggulu ci baat bi nag tey loo xaw a baat bi dafa xaw a jaañ loolu jullit bi dafa war a bàyyi xel ni moom mooy kan waaw waaye bu fekkee ne dafa bàyyi boppam rek nit ñi lañuy defee rek waa fokk ñu di ca nit ña ñu ña ñu sëkk nit ña mën naa dem ba mel ni ñoom waaw li wax ji wax li ko wéral alayhi salaam moo wax ni fen laa yaslihu illa fi talaasin alkasibu nee na ñett rek ci lay baaxe fil xarbi ndax li an al arb xudaa nee bu ñuy xare nga dajeeg jullit yi nga dajeeg yéefar yi ñu ni la yow daje nga foofu mel ni mbooloo romb nga leen mbooloo nga ni leen nga bëgg leen tiital ñu leen gaaw leen dëpp xanaa du mbooloo moo romb fële nga xam ni kenn kenn xewul lu ñu toll ak nganaay yañ yor te fekk kat yow fukki nit ak juróom nga romb te ñii mat nañ téeméer nga leen nag romb naa lu mat junni nit ngir bëgg ñu dëpp ngir nga bëgg leen a tiitloo ak waajoo xam ni day defare ñaari nit seen diggante yàqu muy ñaari fen ak waajoo xam ni yuslihu bihi baynahu wa bayna imraati mook jabaram dañoo jàppante ba attaa sax nee na ko fase naa la waaye mi ngi ci kër gi mi ngi ci kër gi nga ñëw fexe ba waaj jubboog jabar ji jabar ji continuer au lieu mu jàpp idda waaye mu daal euh, wéyal ni kon léegi jabar la léegi waaye mel na parce que tàbbi na nee na ñett yooyu moo dagan ci fen waaw léegi nag yow li nga ma wax ni loolu la waa ji di wax ni dagan na fen woowu daganul wax dëgg yàlla xeeti fen yooyu yooyu kenn boolewu ko ci ndax waa gis nga bi mu fenee ba ba ba ba ba coow li daal am na ku mu takkal koo xam ni loolaa ko dugal police loolaa ko yóbbu cent mètres waaw mi ngi noonu maanaam waa ji li mu def fen wi mooy dafa tuxal dëgg ci ki ko amal jox ko ka ca des wax dëgg yàlla kon ñiy dégg xam nañ li ma bëgg a wax ndax am na foo xëy boo ci jaaree ki moom wax ji day day xam ni diw mii moo wax ba ba ba di wax samay mbir waaye boo tuxalee dëggu mun njaay mii jox ko fàllu jóob ba mun njaay mii ñu mujj dugal ko ci cent mètres nga ne woo fenn fan la baax te yaa ko tey jaawali woo da ngaa faral kale rek déedéet taasub muy parparloo baaxul boobu moom baaxul ala kul xaal waaw kon su ko defee nag mbokk mi waxal wax ji ci alxuraan te ndaw génn Sénégal ci li internet bi wane Gàmbi gam nekk maa ngi gis benn xale bu jigéen bu ne bi bu ni jullit yi nekk Sénégal li leen naqari moo naqari julliti bi kon nee mi ngi interpellé mbooleem mboolooy lislaam yi nekk bi bu ñu jógul réagir def ni waa Sénégal ma xam ni kon tur yee fi nekk waaye Gàmbi ab jullit nekk ko fi benn gambien bu doon wax wax du am solo waaw loolu nag mooy wane ni mbokk mi naa kii dañ koy yeb waaye du moom rek wax wax ju ñaaw gi loolu du tere ñu jëflanteeg moom maanaam dañuy bëgg a tàmbali dafa jot nag ñu tàmbali euh, bàyyi raay raayal bi ndax daana dégg benn waaye di wax ni man de nit day wala doom wala jabar wala ku mën a loo nee na bu mbaam mbaam loo ma lawbe lawbelu kon xam ngeen diggante mbaam ak lawbe li ñu li ñu seq ci ay jamono ba lawbe di sëf mbaam bu mbaam dee bañ gànt bu jëlee aw yatam na muy def ak moom moo tax xam naa mu doon wax naa ku mbaam mbaam lu ma lawbe lawbe loo ku def fi mbaam ma def la ni lawbe def mbaam léegi dafa jot nag sëkk sëkk mbokk mi ni ànd sàmm jikko yi lu muy xaar ànd sàmm jikko yi ñoom ñoo porte plainte di jàmbara mi porte plainte ñi sos ànd sàmm jikko koy ci la bokk Matar Sarr suñu rakk moo jiite aar daara moom moo topp ci Babacar Mbuum mi jiit ànd sàmm jikko koy membre bu ngeen gisagul rek ñu yëkkati ci ñaari mbooloo yooyu ma tudd ñëpp membre lañ ci ànd sàmm jikko koy kon day ay mbooloo yu téeméeri mbooloo ñaar fukk ak nangam ñoo dajale doon ànd sàmm jikko yi am na société civile am nay imam am nay daayira am nay association am na kuréel yu baree bari am na ay individu am na sax ñu nekk ci euh, euh, parti APR te bokk ci ànd sàmm jikko yi kon ñooñu euh, boo déggul seeni tul ñu bokk ci ñoom porté nañ kombaa bi waaye nag gis nga combat bii ndax di am ngeen ci yaakaar man de awma ci yaakaar cent pour ndax mbir yi dafa yeex ndax ginnaaw suñu njiitu réew am na benn article bu tudd quatre-vingt boo bu képp ku ko offensé rek euh, ñu daal lay ñu daal lay ñu daal lay bantal képp ku indi loo xam ne day day indi day heurter public bi ñu daal lay heurter waaye nag alxuraan xam naa da cee bokkul yàlla dafa bokkul ci article boobu lislaam bokkul ci article boobu euh, kilifa diine yi bokkuñ ci article boobu boobu daal damaa yaakaar daal waa état daal ak suñuy <coughs> constitution lañu beral article boobu waaye war nañ leen cee boole de même lii sax ñii bëgg a falu sax war nañoo di jàngat yu mel nii ba bu ñuy campagne te fekk muy lu ñu nar ñu dig nit ñi ne leen ñoom bu ñu fi toogee dinañ wut lu aar euh, yàlla wala boog lu aar diine ji lu aar alxuraan bu ñu nee diine ji rek lépp dugg na rek waaw wala boog diine yi surtout Sénégal booy wax lama ma kii waxoon kenn ci ñii laaj réew mi maa ngi koy nuyu bu baax sant bi rek moo doy waar ci waxtu wi mooy docteur Cheikh Dieng ñuy waxtaan euh, mu ni ma Euh, ma ne ko ndax nangam ci lislaam ma waa bu dee Sénégal sax da naa euh, ak ak diine ji diine yi bokk diine yi ndax yeneen diine mi ngi fi ala kulli xaalin kon euh, ñooñu dañ leen di war di interpeller ñu ngi leen di xaar bokk ñu boole waale ci seeni programme yi ñuy leeral ndax ñu ngi def liggéey bi ci àll bi ci terrain bi gis nañ ci ay nit ñu ngi wut ay nit yu yu leen diglu ba ñu sol seen noppi lu leen doy ba ñu mën leen a ne kon na ngeen ci boolewaale kaaraange gii nga xam ni kat jullit yi toujours ñu am lu leen naqari te mu mënu ñoo fajal seen bopp ndax kon lu waa jàpp leen ki mën a fajal nag boppam na fajal nag population bi te population bi majorité musulmane la te mbir mi ngi bëgg a déborder mi ngi bëgg a ëpp saaga yàlla bëccëgu ndara kam lii nit ñi gëm muy alxuraan nga nga ni am na loo xam ne du dëgg ci alxuraan la Abdou Aziz Touré waxoon rek cey bu ko waxante ci sëñ Tuubaa wala Alaaji Maalik ak mboolem mag mu bind ci Sénégal ah buñ doxul diggam ak taalibe yi de waxuma la balaa sëriñ saa ñëw de dinañ ko bantal ndax Siise mi gis ngeen waañu seen i dóor ko fi ba xotti ay yërem waaw mu tuub jooy waaye moom lii moom ci lay dund ci lay dund su ko defee internet yi nga xam ni ay site lañu yàkkamti wuñu ba gis ngóor su mel nii dëkk ko micro nañu bàyyi loolu ñu ngi nuy tooñ te ñoom am nañ ci responsabilité te bis buñ jógee di faj ñoom ñoom ñu koy def mën nañ caa bokk waxtu dañoo dab rek kon asalaamaaleykum wa rahmatullah